salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nii mbokk alquran ak sunna rek yëpp di ziyaar di yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko na naa audio yi incha allah audio yi gàtt lay doon rek aju ci yenn mbir yoo xam ne daf ñooy ci biographie kii di Limaamu Laay xam naa jubluwaay bi mooy rek daal di contextualiser mbir mi mooy mbir boo gis dafa am contexte mu amee mooy woote gi mu woote woo ab mahdi woote woo ab yonent dafa am contexte contexte boobu nag faw nit ki eh, daal di koy comprendre pour mën a xam lu bari lan moo ko waral ginnaaw ba nga xamee ne mbir moom du wéeru ci alquran sunna ah eh, mu réy nii nag nit woote woo ko lu tax mu woo ko bis boo xamee sabab bi rek sa li nga xam ne mooy sag jaaxle day day deñ looloo tax ñu bëgg indi lenn ci biographie Euh, ci mbir mi nag dañuy euh, tey euh, taxaw seetlu bi dañuy basé wu ci benn biographe boo xam ne benn site bu ñu ci la Yoof Salomo ci la nekk ak benn partie ci biographie boo xam ne mi nekk ci benn article boo xam ne Libération ñu ko bind biographie bi ñu indi nag amul kenn ko contesté boo dem ci seen site yeeg boo dem ci ñi bind ci moom laay même biographie dañu indi amut li ñu indi fii kenn contesté wu ko loo xam ne lu wér la sax ci moom amul kenn ci koy contesté ci mbir yi dañ jël tuuti ci lenn ci li nga xam ne moom moo ko dicté mooy Limaamu Laay foog ñu xam benn mbir te benn parenthèse mooy Limaamu Laay jàngut loolu problème la euh, nit ki mën a wax loolu nga am problème te yonent salaam jàngut yonent salaam ñàkk jàngut du problème solution la yonent salaam ñàkk jàngam daa am lu ko waral doon xujja gu rëy guy di wane dëggu yonentam yàlla ñëwut ak daal indi yonent bu jàngut ngir ne yonent bi jàngu déedéet dafa indi benn mbir mooy yàlla subhaan dafa jël mucjisa li gën a mag ci mucjisa yonent bi sallallahu mu def ko alquran mu doon lay gi nga xam ne mooy naw nekk layu ci kanamu képp koo xam ne yow ginnaaw ba yàlla yónnee yonent yaa ngi dund mu doon xujja ca kaw ba yowmal qiyam doo am benn laaj kanamu yàlla sunu borom. yàlla dafay xeepe loolu amul benn itiraat mu nit ki mën a indi bu xel mën a nangu wala dara mën koo nangu ngir mën a daal di weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla su fekkoon daa jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fekk yonent bi xam na jàng na mën na bind mën na liir balaa ma koy yónni kon tuuma yi nga xam teg nañ ko ci kawam nit ki mën naa jax si xelub nit mooy di kii nii téere mbir ci nekk yenn ya ma ngi ca al injil am na yoo xam ne moo ngi ca. moo nga ca tawraat am na ñoo koy gis yeneen civilisation yi ñu koy ñu koy wax ndax Iblis alquran ñoo nettali histoire daf ñoo ay ay gëm yoo xam ne Nuux ba tey moom moo ko ñoom loolu lañ digle woon yu bari yàlla am yu mu jël jagleel ko alquran jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu daal di mën a wax ne kon fekkoon yàlla jàngal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah ñu ne kon kii def ko def ko koo liir yeneen ñi yàlla soo tax ngir dàq loolu yëpp sànni ko fële xam ne kenn doom ci loolu mu daal di jël yeneen bi sallallahu def ko ab ummi mustalin mustalin ba ñëpp xam ko bépp lay bu ñu mën a taxaw ñaan koo dicté naan dañ ko wala boog daf koo daf koo bindee feneen wala dañ koo jëlee feneen dañ koy jël daal di sànni fële ndax kii moom ab ummi la ndax mu'jiza bi gën a téere la muy alquran bon mu ñëw jox ko koo xam ne jàngut mu jommal ñi jàng ba pare daal leen di défier ne la indi leen rek ab aaya bu mel ni benn aaya ci téere bi ba àdduna tukki mënuñu ko te jàngkat di gën a jàng di gën a yokk di gën a bari kon la chaque nit xam ne yonent bi too jàngut yàlla jox ko téere amul téere kon ñàkk jàng ngoom lu muy jariñ lu muy tekki lu du ñàkk xam rek mën na doon moo ji sax moo tax ma ne moom ñàkk jàngam problème la te soo xoolee sermon yi nga xam ne dicté na ko dañ ci ñëw la ci nekk yëpp moom mooy yéema di manière générale di diglewaat nit ñi loo xam ne delluwaat alxuraan sunna te loo muy diglewaat waat ki ñu dellu moom jàngu te nag duggut ci détail yoo xam ne da ngay jommi daane kii ku jàngut lii noo ko xamee la muy wax yëpp te biir yëpp ko jàngut mu nga ko xam ko xam l'islam d'une manière générale rek xam nga ko xam nga ko dee leen julli dee leen wootee leen def loolu ñëpp mën nañ koo digle cest li mu digle ci sermon yooyu noonu amul lenn lu la cay jommal ni ku jàngoot looy xamee lii la mu wax yëpp kuy ku judd ci lislaam xam tuuti lislaam mën ngaa digale lu raw loolu foofu nit loolu lañ gis ñoom kon ñàkk a moom problème la mais loolu ab parenthèse la li ci li nga xam ne moom mooy euh, serment yooyu nga xam ne dicté na ko ñu ci wolof ñu koy tekki li nga xam ne mooy ci français ak ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy arab su ñu nekkoon ci mooy biographie Seydina wala bokk maa ngi jégalu loolu lañ bind ñoom Seydina Limaamu Laay ci présidence dañuy wax ne ñoom léegi mu ne Seydina Limaamu Laay El Mahdi nekk en 1843 dans la région de Dakar plus précisément à Yoff sa mère est Mame Koumba Ndoye et son père Mame Alassane Thiaw elle commence sa prédication le 24 mai 1883 à l'âge de 40 ans se présentant comme l'imam des bien guidés ou l'imam al mahdi tout attendu kon mi ngi l'imam euh, Alassane Thiaw euh, ndeyam Je suis venu le moom je suis ci la tàmbalee woote mu l'imam des bien ak mahdi tant attendu fii nii nit ki dafa quarante ans wow dañ koy faral tur ñoo lu bari quarante ans ñeent fukki at la ñu yónni yeneen bi sax moom ñeent fukki lañ ko yónni fii nii beneen problème la mooy su fekkee ne kon dafa judd quarante ans war a doon signe pour wane ne war ko yónni ba quarante doon signe ne mooy yónent bi kon faatoom daa war a doon 63 ans comme yónent bi sallallahu alayhi wa sallam donte 40 ans yi ne am na ixtilaaf ndaw yenn saa yi ñu def ko 41 def ko ñu wàññi ko des ñu yokk ko waaye moom mi ngi faatu 66 ans avant sa disparition en 1909 âgé de 66 ans kon su fekkee ne date bi ñu wax wér na 1883 euh, loolu ak coïncidence lay doon su fekkoon ne am signe bi ñu bëgg a wane ci loolu dañuy fexe ba kon li nga xam ne mooy mission daan nekk 23 ans waaye moom mission <laughs> kon 26 ans la nga gis ne foofu noonu moom euh, lañ bëggoon a def yàqu na euh, su fekkoon ne dafa faatu 63 ans kon dañuy insister à 63 ans yi kon nga xam ne kon 40 ans yi. am coïncidence wala ka nga xam ne moo ko ñëw di ko dee mbir yooyu xaar mbir moom la chaque ne mën ngaa ab seytaane mu ne la dara mën naa ñëw xaar ba nga am ñeent fukki at mu ne dama laa yónni waaye nag bés mu lay rey yàlla rey ma mënu ci dara <laughs> mënu laa rey te sa sa bisu dee moo tax waa ji dee wut nga xam ne lu dut 66 euh, ans mu ne en 1883 déjà orphelin de père Limamou Laye perd sa mère et s'enferme trois jours sans boire ni manger fii nag mooy ñëpp yitteel

mu tëju ñetti fan yoo xam ne lekkut naanut ci ñetti fan yooyu ba mu génnee mu ñoo leen venir à l'appel de Dieu vous hommes et djinns je suis l'envoyé de Dieu fii nii eh, limaamatu fi demee sermon tamit li mu woote mooy rasulullah te loolu dafay am lu muy soo xoolee li muy wax ci sermon mi li muy woote day gis ne kii li muy woote sax moom den saay da ci jaxasoo ak ñàkk jàngam day feeñ ci loolu ndax su fekkoon dafa woote woo ne moom euh, su fekkoon ku jàngale du woote woo euh, risaala nga ne nubuwa lay woote ndax su wootee nubuwa mooy gën a si yi gën a rëyee ci yenn nit ñi euh, yu bari ci fi koy mën a dàqee mooy ñàkk am téere beeg ñàkk am diine ju bees ak waaye su wootee risaala fan mbir yu bari yoo xam ne dañ koy charte ci li tàqalee rasul ak ak nabi donte wuute gu yaatu am na ci moo tax lu bari ni gi mu ni ko laaj ko mën a indi nga gis ñu ñëw ñu bari nga xam ne xaw na ñoo jàng tuuti woote woon nubuwa eh, woote wa bokk ak yonen te la ñuy woote mooy nu moo du ñu woote risaala dañuy indi lënt boobu naam daan ne rasul moo dut am ci ginnaaw yonent bi sal allahu alai wa sallam waaye eh, ab nabi mën naa ñëw eh, ila axiri ala kulli xel mais moom génnee kon dafa ñëw daal di génn ci ñetti fan yoo xam lekkut naanut daal di génn ne moom mooy Seydina Maalik dit qu'il est la qu'il est réincarnation de Muhammad mu daal di génn nag ne man nag maay yonent bi dañ taxaw ci contexte bi mooy waa ji lébu la lébu ko leen ku xam lébu d'une manière générale communauté lébu xam ne ñoom ñooy perpétuité li nga xam ne mooy euh, culte rab xam xàmb nëpp na doon ñëpp xanaa chaque année ko xam le boo xam ne culture rab ndëpp loolu seen culture la wala bokk ñu koy dundal lañ te tamit ñu bari ñoom ñu koy fonk lañ su rawatina nag jamono ji nga xam ne ci la moom woote mbiróom ay 1883 nga xam ne ci aada ak cosaan ba tey dafa desoon lu bare bare ci Sénégal bokk nañu seen mooy sax mu ñëw moom après dafa xeex lool kon moom loolu moom dafa bokkoon ci communauté yëpp kon contexte boo xam ne contexte ay ay rab nit koo xam ne dafa chagrin moo ko càpp am lu ko naqari mu dem beru ñetti fan boole ci xiif ak mar ñetti fan gis nga ñetti mbir yi mooy ku am chagrin am tristesse kuy def roqya di faral di mocc di nga xam ne seytaan fi muy gën a profité ci nit mën koo dominer mooy fu mu amee excès de tristesse wala excès de euh, wala boog euh, koy tuddee de contentement xaw ma euh, nekk ci benn xaal boo xam ne contentement dafa dafa ëpp songee nit moy fu wéete moo di sami mi ñu wax ni seytaane moom benn lay nekkal te da gën na sori ñaar mooy minal isnayn abaad moo tax mu ñuy diggal suñu tukki sax nga ànd ak nga ànd nit wala nga nit ngir baña shaytan nekk sa andando ni ki mun naa fa pante yéen sal daan ni di wéet tibi sallallahu alayhi wasallam sallam ni da dem wéet benn fan ñaari fan am lu ko feeñ yéen doon yët yàgg yàgg yàgg bare bare bare te itam que nekkuloon yëtu koo xam ne dafa dugg ngir dafa am lu ko naqari daamu amul tristesse waaye dem lu xalaat ci boromam su ànde mu daaw ànd xiif ak mar bal daan yóbbu lu muy lu muy lekk lu muy naan foofu comme ni mu ñëw ci xadiis mooy da daan jël mbir yi nga xam ne moom la doon soxla yóbbaale ko. kon ñaari wéet yi wuute dañ kii dafa am lu ko naqari lool yaay moo faatu mu tëju ci nekk te tamit képp ku xam mooy nit fu mu mën a halluciner ku ñu am psychologie yi nga xam ne hallucination bokkul li ko mën a ni mooy xiif gu metti soo bu dee xiif gu metti chagrin ak ku wéet kon foofu trouble mën na am ci lu yomb ànd ji nag mu génn daal ne man maay keneen mooy dafa génn daal ne moom keneen la ne man maay Muhammad kon nit ki dafa nekk ci naqar wéet ñetti fan lekkut naanut génn di woote loo xam ne ñu koy faral di wax ku xam ne nga xam ne yi nga xam ne bokk na ci tibb schizophrénie yi nga xam ne tubaab moom lépp loo xam ne ñu ñu tuddee rab ak ay noonu lañ ko tuddee ñoom bokk na ñoom ni ñu koy ay tibam mooy nit ki am ma de personnalité jàpp ne moom mooy keneen waa ji loolu la indi fii dafa ñëw ne moom mooy Mouhamed mooy affaire am na sew sew bu am ci mbir mi mooy moom waxut ne waxul kese damaa yónantu yàlla mais dañ maa yónantu yàlla bi mooy def ne moom mooy Mouhamed benn damay fàttali benn anecdote euh, benn kàttale mooy ne am na benn syndrome bu ñuy tuddee syndrome de Jérusalem Jérusalem ñu bari dañ fay dem jamono jii nii saa yu fa demee ñu bari dañuy egg Jérusalem rek suñu eggee dañuy commencé woote woo yonent am na ñu bari ñu dem Jérusalem pour visiter rek dañuy commencé woote yonent mën nañu wax le syndrome de Jérusalem ay nit ñu baree bari ñu wootee woo Mahdi yi woote woo yonent bu ñu fàtte tamit lii di Mahdi woote woo yonent nekkul moom moo ko njëkk a woote li tam ñu bàyyi xel mooy amul benn yonent bu mës a ñëw. ci yonent yàlla yónni yëpp mu ñu ku mës a ñëw ne man maay keneen ka moo tax bàyyi xel mooy amul benn yonent yonent yàlla keneen moo réincarné wu ci man du Muhammad du Isa du Muusa du Suleymaan du Daawud du Ibrahim du du kenn amul kenn ci yonent ku ci mës woote ne moom dafa am ku réincarné ci moom keneen ka moom moo dellusi mustaam loolu ñu bàyyi xel kon fii nii xiif mar tëju ñetti fan am chagrin génti wax wax yoo xam ne ñañ ko doon wax faral di xamal mooy ñoo xam ne seen dafa demoon après mu ne les gens le pensent d'abord fou mettant son comportement sur le compte d'un envoûtement ou du chagrin causé par la mort de sa mère mu ne son oncle fut chassé de la grande place du village par ses amis

day wane seenu dëgg ndax ñeneen accuse dañoo dof yeneen yi dañ leen a won lu gën a nite ñoom la ñu nekk ñu ñàkk lay na leen di gën a dof amut yenn loo xam ne yonent yi wan na leen ko luy nduróo ko dof waaye nag ñii moom dañu ko wax dangaa dof ndaxte ñoom daa mbir yoo xam ne moo ci lañ basé wu pour wan kook dof mooy lan mooy tëju na am na lu ko naqari te ñoom xam nañ ne jamono jooju envoûtement am na mooy eh, mën nañ koo liggéey wala sama mi mu génte la wax yoo xam nit du ko wax mooy man maay diw te ñu xam ne du diw su ma génnoon tey ci mbedd mi nii man maay man maay Sarkozy wala man maay Macron wala man maay xaw ma kenn wala ma ñëw Sénégal man maay Serigne Touba dañ may dañ may jël dañ may jël yóbbu kenn du ma déglu dañ may jël yóbbu faji ma kon ay mbokkam daal di koy accusé ne kii daa am la ko dal loolu tam beneen mbir la mooy yonent bi solo ay mbokkam mu mosuñoo xalaat beneen wax ko dafa dof nga xam ne ni kii mu jegewut dof kii mooy mbokkam ci saa si dañ koo danga dox bañ la ñu jëlaat nijaayam sax dañ koo dàq ne ko demal faji sa demal faji sa li nga xam ne mooy sa mooy sa jarbaat bi loolu foofu moo ñuy indi ci article libération ak libération bi day indi beneen day yokk beneen mbir mooy ne effectivement dañ ko mujjul daal koy ndëppal mooy dañ ko dañ ko duñ ko ndëppal nit ko am ñeent fukki at ñu ndëppal ko te dara jotu ko parce que nit ki war naa mën a tawara ci xarat mais ñu ko ndëppal li ñu am solo mooy ay mbokkam ñoo ko ndëppal kon xam ne kon ñoom lim leen wax lañ ko jàppee ak lañuy ñu gisee mbir mi mooy ne nekkut wax ko koo xam ne dafa ànd ak li nga xam ne mooy mooy xelam Le demee article euh, libération la 11 février 2018 lañ le publié. a c'est la Kafrir la euh, article bi article boo xam di euh, en charge hein. article boo xam ne day di wane dëggantaan di même 1909 est un pêcheur agriculteur Lébou Le récit fondateur vient en 1883 alors qu'une comète passe dans le ciel. Une comète passe dans le ciel, il lance son appel et déclare, il se déclare l'envoyé de Dieu, le Mahdi. On lui prête cet appel à Djiboda Allah. Vous venez à l'appel de Dieu, vous hommes et je suis l'envoyé de Dieu. L'arabe blanc s'est noirci. Le Mahmoud a 40 ans, l'âge de la prophétie. suivant certaines traditions musulmanes, il se rebaptise rebaptisent laïcs. mu a une déformation d'Allah te loolu dafa wuteeg li yonent bi sallallahu alayhi digle uduuhum li abaihim daganut kenn muy woote keneen beneen tur beneen sant bu nekk sant baayam loolu la alquran daal jàngale fii mu ñëw wuteeg li xam mooy alquran da alquran nit ki la war a sant yàlla sant baayam naam ba sa basa la une déformation d'Allah wolof de manière concomitant à la création d'un la de la ville sainte de Touba Quand un phénomène commencé bénéfice. la ville sainte Touba ñu formé commencé aussitôt voilà une petite une, une, aussitôt une partie de l'entourage du prophète bénéfice. redoute une possession comme bénéfice. ci a un comme le dafa et pratique des rites exercice à son sujet il a di koy jël daal di ndëppal et de son oncle lui-même est parti à et prié d'aller soigner la folie de son de son œuvre kon en fait nit ki ay comme dañ koo ndëppal fa waru interpeller nit ki nit ko am ñeent fukki naam ay mbokkam ñu ko xam bu baax naam mu ñëw daal di waxu mbir lu lu lu lu lu rëyee ñu xam ñu lenn ñu ngi def jappé ko ko xam dafa may rap ba daal di koy ndëppal lan la war a interpréter nit ki beneen bi daal may interpréter nak suma démé ci lan moy sermon yi nga bind na ko bu am ak lien ak li ñuy wax ni ndeppal bek am rab bek nangam ak nangam suñ demee ci sermon nga xam daf koo dicté ñu daal di koy bind euh, may sermon six bi ndax juróom sermon la gudd la ah, à des créatures qui ordonne la probité et l'embellissement des actions. Bénédiction de Dieu, paix sur le meilleur des envoyés de Dieu. mille salutations. de moi sont adressés à ses intimes, à ses amis, à ses disciples. bon dañu saa dañuy gis mbir yi jaxasoo ne sax ab yonent ay taalibe lam it ñu ko comme Abdoulaye Diallo à tous ses parents musulmans aux hommes aux femmes Dès que fii nag fii moom jaaxal mu ne jusqu'aux de leur maison fii day nuyu day nuyu ginaar vraiment interpellé te fii laa bëggoon yem ak yéen mooy su ma dëkkee yow ma dayoon ne nit tey jii ne ko nuyul ma sa kër nuyul ma ginaar ya ndax su eggee këram dina mën tase nag Fatou Ndiaye <laughs> si yóbbu ay mbokkam yóbbu ko faji ko <laughs> fii ni la fekk ne kon ñu bàyyi xel mooy nit di nuyoo mu ne mille salutations de l'imam lay sont adressés à ses intimes, à ses amis, à ses disciples, comme Abdoulaye Diallo, et à tous ses parents musulmans, aux hommes, aux femmes, jusqu'aux poules de leur maison. man il y a ne benn problème problème problème am na beneen mbir mi fi ñuy jeexal ci sermon bi mooy sermon ba mu paree ci jeexal bi dane nga xam ne lii nu waxu ab yonent yonent waxee nii mu ne si vous découvrez quelqu'un dont les conseils sont meilleurs que les miens ou quelqu'un qui vous interdit plus de mauvaises choses que moi abandonnez-moi et suivez-le mu ne su fekkee ne da ngeen a gis kenn koo xam ne la muy digle moo féete kaw wala mi leen di xelal moo féete kaw man li mu leen di xelal wala koo xam ne mi leen di tere ci lu bon moo ëpp man li mu leen tere ci moom mu ne baleen ma topp ko ab yonent du ko wax ab yonent gis ko topp da ngay doon yéef ko wàcc doon yéefar ba gis ne yenn saay ci seen mooy dañuy gis ne yenn saay donte nag si ndax lii nuy la ko waxee moom loolu doon doon problème parce que dafa dicté rek moom bindut ay taalibeem daal di bind wala boog daal di eh, traduit ko en français traduit ko en war nañ ko bàyyi ci wolof nag ndax ñoom dañ ne eh, yónnee du nekk ca sa làkk na la yónnee kon kay dañu war a bàyyi mbir bi mu ca wolof ngir nit ñi mën a xam la mu wax ca wolof ñeneen ñi nga xam ne ñoo bëgg ñëw nag daal di ñëw ñoom jàng si wolof ngir dégg ko bu fekkee mbir mi koy delloo ci arab ak ci français moom mu doon ñu yónnee ko ci wolof ah. ba mbir beneen loolu dafay dafay ak lay doon mooy nit ñi dañoo dem jàngi wolof kay dégg wolof aa ñi ngi na ko bëgg nekk xam-xam ci seen diine googu foog nga jàng wolof ba xam ko soo jógee feneen sax nga jàng wolof kon ñi ñun ñii jàngee arab pour dégg diine yàlla ci pas jàngee ko france di ko tekki muhim wala ci arab kon mën nañ ko yónni ci français rek wala ci li nga mooy mooy arab mais fii nii benn mbir la ci dafay interpellé mooy naka la koo xam ne foo woote wu yónent ba pare naan nag su fekkee ne da ngeen a gis koo xam ne moom li muy digle féeti na koo samay digle wala conseil yi muy jox moo gën samay conseil wala li di tere ëpp na li mu leen tere man ngeen ba ma daal di koy daal di koy topp loolu chaque wute nag waxub euh, koo xam ne dafay woote bu yenent ak di woote say ñoom dañoo topp ay taalibe nekk bu yenent ba nag nanguwaat ñeneen ñi mën a may pàcc pàcc loolu nañ ci ñëw ci yenn sermon yi xalaa ko daal euh, lii mooy contexte bi nga xam ne moom ci la woote woo léegi nit ko nag borom xel la day xalaat nit ku xiif tëju ñetti fan yaayam faatu euh, mu génn woote ne moom mooy keneen te lii feeñ mooy dem mosu def nga looloo feeñ ci wàcc mu génn woote ne mooy keneen ay mbokkam jàpp ni ki yorut ñu daal di koy ndëppal ñu nuyoo di nuyu ay di nuyu ginaar maanaam wallahu aalam la a doomi Abdalaay Ja ku ko man di woote woo kooku moom day fen fu mu mën dëkk day fen ku ko mën a doon day fen doomi Abdalaay Ja ku ko man di woote woo kooku moom day fen Ja ku ko man di woote moom day fen fu mu dëkk day